أعوذ بالله من الشيطان في كل موضع وفي الأوطان بسم الإله وهو الرحمن وهو الرحيم قاد للأمان alhamdulillahi wa salla abada ala allazi bihi lana al huda abada sayidina muhammadin wal ali wa sahbihi zawina walil wali laqil lisaani waxlulan minhu luqad wajalhu zakiran wa shakiran abad wajal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida anta allazi allamta luqmaana alxikam faliyahab bilmustafa xayra shiyam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 ci mooy wéele waajal weeru koor te tey ñu toll ci sunu juróomeelu bind démb ñu yemoon ci xadiisu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi bi mu wax ne képp ku mënta bàyyi wax waxi mbóosóor ak di ko jëfee yàlla amul soxla ci sab xiif ak saw mar tey ñu fas yéene sësale waxi jawrinam ji Sëriñ Tuubaa ci anam googu yi buñ demee ci téerab masaalikul jinaan Sëriñ Tuubaa sax day wax ne koor de na ngeen ko fonk ndax mooy li gën a gaaw a maye ngërëmul yàlla ak i xéewalam fa huwa min afdali ma talabta mardatan bihi wa niama waaye nag daal cee teg ne koor rek ah ajiwul rek ci bàyyi lekk ak naan de déedéet daal ne bëriwaane koy ànd gaaña di woor te amul ca kooram ga loolu ab xiif yàlla na ca la musal daal ne koor mooy sa cër yëpp dañuy woor ci lépp luy waral njuumte bët bi na woor tànk yi nañ woor nopp yi nañ woor làmmiñ wi itam na woor ci jëf lu araam yooyu yëpp xalaat yi sax na nga ko orienté ba ñu xalaat lu rafet ak lu baax ni nga bàyyee lekk ak naan nee na bul baril nag xadd ak ndogu am na gaa yoo xam ne li ñuy xadd ak ndogu ëpp na nee na bu sa biir feesee dell daf lay xañ ab yool dal ne képp ku feesal biiram ci ñam ak ndox ak nelaw yu bari nga xam ne bëccëg gépp da nga ko nelaw guddi gépp nga fanaanoo ko lekk ka naan nee na yaag bàyyi ma yi yéen a yem ndax yiwu rëy rëy dana la raw ci koor gi daal cay teg ne lenn ci gaañu de moo ne lekkuk nag lañuy lekk sëñ Tuubaa mooy wax de xam nga nit nag bu demee ba lekkatut lekkuk nit lu lekk lekkuk nag xam nga booba mat naa waxal nee na am na ci gaañoo xam lekkuk nag la ñuy lekk waxtu ndog yi ak waxtu xadd yi ba day mujj nee na kii def loolu biiram day fees dell aw yaramam diis gann ba ab xolam du du jàng sax wala mu yittewoo turi yàlla wala xasida wala alquran wala yu noo demee déedéet te it nee du làq dara ci ab ab yool ëllëg yowmal qiyaam daal koy tëjee yàlla nañu yàlla musal ci woru musal ñu ci lépp luy lore àdduna ak àllaaxira bayit yi mooy yi may bëgg a jàng ku dem ci masaalikul jinaan danga ko fa fekk summa siyaamu fantabih lam yanasir fi adamil akli faqat la taxtarir fa ruba saaimin maa aljamaa laysa lahu fihi siwa almajaa fa sawmu an yasuuma kullu xodwi an kulli ma yufdi fatan li saxwi amsik an ilnadari lilxarami walmashi walsamim an lkalaami wa kulli fikratin radiyatin kama amsakta an aklin wa shurbin ulima wala tukassiri suhura walfutur mumtali albatni fa tuhrama alujur wa kullu man amlaa batnahu taam wa akthara shurba alayhi walmanam fa innahu maha albahimati stawa isfatuhu xayrun kasirun fatawa wa baaduhum yakulu akla albaqari aklal baqari waqta futurihi wa waqta sahari xataa yakuna batnuhu saqiila jiddan fa saara xalbuhu mashquula an akri an sikri rabbihi wa yaddaxi siyaam wa huwa laa yaxwi fatilan fi lqiyaam aadana allahu min alxururi wa kulli ma yadurru fi duhuri kon mbokk yi nañ farlu bu baax ndax koor day yàlla moo ñu ko jagleel ñun xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la yonent bi daan wax rek Euh, rajab mooy weeru suñu borom shahbaan mooy sama weer man yonent bi ramadaan mooy seenoo weer yéen jullit ñi ndax xeetu yonent bi kat dañ dul gudd fan yonent bi sallallahu alayhi wasallam na aksaru ahmaru wa sab'in gën jaa gudd fan ci sama xeet kat mooy diggante juróom-benn fukki at jàpp juróom-ñaar fukki at looloo tax yàlla beral leen loxo ñu mën a am yiw woo xam ne nii xeet yu njëkk yi daan dund ay junniy at daan dëkkee jaamu yàlla guddeeg bëccëg mënuñu koo am waaye nag ci kaw bu agsee nga xam ne kat lii dañ dañ la ko jox ngir nga sàkku ci tiyaabu kon nañ woor ngir yàlla te wooral cër yépp ñu bañ a jëm ci lu araam te wattandiku li lekk gu bari gi xam nga itam dañ la aaye woon ndekki ak añ ak lekk ci bëccëg gi ak naan ci bëccëg gi ak njoganal ak yépp boo ko bëggee fay ci guddi gi nag booleeg la nga waroon a lekk ci guddi ga du sotti kon séeréer yi nañ xam seen bopp bu baax ak ndaw ko ndaa yeeg njaayeen yeeg njóobeen yi te xam ne nag wax dëgg yàlla euh, mënee su koo fay li la rawoon ci bëccëg gi mënee su koo fay ci guddi gi booleeg euh, la la nga waroon a jëfandikoo ci guddi gi kon nañ yemal lekk gi ak naan gi te notal jaamu yàlla gi ak wérdi yi ak jàng alquraan yi ak jàng xasida yi